tey nag ñu daje woon tey en assemblée générale je peux dire mën naa wax ne assemblée générale la ndax réunion bi niñ ko sàkko woon amee nañ ku nu kawe njort li ñu fi dajale nag mooy def compte rendu ci activités yi nga xam ni def nañ ko waaye tamit euh, wax li nga xam ni moo jëm ci situation politique réew mi joxe itam perspective yi nga xam ni moom lañ fas yéene jëfee ci suñu parti au niveau départemental au niveau régional jéem a lëkkaloo ak niveau régional bi national donc li ñuy commencé mooy di féliciter ak remercier suñu mbokki politique yi nga xam ne ñoo leen séqa région bi muy waa Diourbel ak waa Bambey euh, ñu superviser seen activité waaye tamit di remercier ak félicité ñu nekk ci département bi nga xam ne tey ñoo ñoom ñoo ànd liggéey bi euh, lu jëm ci politique gu réew mi gis nañu ni gestion des affaires étatiques li jëm ci mbirum réew mi régime bu bees bi fi nekk euh, ci son excellence monsieur Bassirou Diomaye fay jiite ko ñi ngi def ay jéego li ñuy wax ay pas de géant jéego yu ama am solo yoo xam ni mérito nañu saluer ko mérito nañu féliciter ko donc commencé ko ci wàññi dund bi ba ci effort yi def ci jiw yeeg yeneen ak yeneen mën nañ cee ñëw donte day gudd waaye ku nekk xam ne ni loolu defuñu bilan waaye ay jéego la yoo xam ni kawe na njort ci sénégalais yi ñu leen di ñaanal ñu continuer sur cette belle voie. di ñëw nag ci suñu parti ak suñu njiitu parti muy le président Moustapha Mamba Guirassy di ko féliciter ci taxawaayam ndax ñu jox la ministère de l'éducation nationale nga xam ni kuñ ko tudd nga ticket nga réaliser ci loo xam ni en un laps de temps trois mois. ñëpp la féliciter à travers le pays muy enseignants yi muy parent yi muy élèves yi jàpp nañ ni mérite na nag ñu gën ko sargal gën ko ñaax gën ko gunge gën ko jox ay xalaat yoo xam ni euh, dina permettre mu réussir son œuvre dans l'avenir su loolu wéyoo ñu ñëw ci suñu parti muy parti boo xam ni ku ne gis na implantation au niveau national régional waaye au niveau départemental ñu fas yéene jublu ci ay activités activités yooyu mi ngi commencé ci samp cellules yi def ay tournées au niveau des communes du département de Mbacké la nga xam ne am nañ ko fa ñu renforcer leen fi flotté yëpp ñu fexe nu ñu fa sampee ñoo xam dañ man doxal liggéey bi loolu nag c'est pour bientôt yàggatul dara incha allah ñu soobu ci liggéey boobu li ci des mooy di ñaax suñu mbokki coalition Diomaye président di leen wax ni parti yi ci nekk yëpp nañ gën a suudewu nañ gën a jàppante nañ gën a liggéey ngir defendre les réalisations wane réalisation yi wane vision bi waaye tamit jege askan bi ba ñii nga xam tey ñoo yoroon réew mi ba wàcc yàq fi yàq goo xam ni jégg na dayoo ñu mën a jàkkaarloo ak ñoom nag wane li nga xam ne mën nañ fi yàq waaye tamit duñ am droit au chapitre maanaam duñ am benn sañ-sañ wax ak askan wi parce que liñ fi jëf mi ngi fi tege mu mel ni li ñu wax reddition des comptes réew mi toll na foo xam ne yàq gi kawe na njort le min le premier ministre Moustapha Mamba euh, Moussa euh, le premier ministre Ousmane Sonko ñu profité occasion bi di ko féliciter di ko remercier ci réalisation yi nga xam ne moom lay def ci njiitam euh, gi mu jiite gouvernement bi ñu koy féliciter aussi ci li mu wax barki démb rek comme quoi que yàq gi kawe na njort te bientôt daan ci xam dara ñoom nag ils ont l'obligation ñun nous avons l'obligation lépp loo xam ne yàq nañ ko fi ñu wane ko wax ko askan bi waaye tamit topp ñi nga xam ne ñoo fi dàq ñoo fi yàq topp ñi nga xam ne ñoo sàcc alali réew mi ngir ñu génne ko waaye tamit yoon jëflante ak ñoom loolu buñ ko jëful askan wi na jaamarul ak ñun parce que nag mënuñu comprendre nit sàcc ñu yuuxu ko sàcc xam ne kii moo sàcc mu mel ni da nga ko seetaan mu raw kon askan bi dañ naan yaa ko far ci sàcc googu kon li fi jaar ci suñu ressources yi ñu lapidé di lapidé li fi jaar ci xaalisu Sénégal bi xaalis xaalisu contribuable sénégalais bi ñu dilapider ko loolu exigence la ci population sénégalaise bi exi exigence la ci nga xam ne ñooy politique pour ñu imposer ñu rendre compte commencé ko ci ñi nga xam ne ñoo ministres yi DG yi ba ci ki fi jiite woon réew mi di Macky Sall donc loolu exigence la ci population yi ñu war koo jëfe war koo waxee war koo dox ba Sénégal yépp xam ni seen alal jin rawaloon fexe nañ ba mu dellusiwaat li ci des mooy euh, di waxaat encore une fois politique gu Sénégal politique gu réalisation la waxi kese yoratu ko kon opposition amatul benn possibilité ñëw di lëre askan bi ndax liñ fi defoon mu ngi fiy tege cee daañu leeral lépp incha allah jàpp naa ne loolu moo doon version wolof bi ma waroon def.